mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi ñoo ngeeg euh, Moustapha yi ki nga xam ni moom mooy suñu consultant moo ñu gën a miin làmb gën ñoo xam làmb gën a xam lépp loo xam ni dafa dugg ci biir jël bi jël bi naka la tëddee tey Moustapha ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu Boubacar di nuyu mbokk téléspectateurs yi tey ji nag dafa am lu am spécialement Moustapha Gueye dafa def jël bi ci teewaayu son maître son coach Amadou Kati Diop mi toog ni bëgg nga tàcc ma ko baax ndeysaan tey jii bubs aw ma droit juum aw ma droit gag su ma juumee nag bu ma gaggee damaa ci escalier yi rek. da mu dee ma rek. mu wax ak man ma ñëw àggali. ki nga xam ni moom moo la jàngal moo fi toog. ki la moo fi toog ki la dee ci nopp moo fi toog daa culaat leen ko pour man s'il vous plaît. jël bi njëkk bi mooy diggante Baye Mandione écurie yi Gëm sa bopp ak Modou Anta écurie Lamp Fall. Ah, ñoom ñaar ñëpp ma gis ni dañoo am taxawaay ma Mandione euh, dafa mel ni euh, poids bi ak graisse gi nekkoon ci moom yëpp dafa dem. dafa dem loolu mooy il a bien travaillé. Mhm. sa à dire li ñu naan la poubelle. Mhm. des fois da ngay bindoo bind boo xamante ne loolu la ñuy woowee la poubelle. Mhm. poubelle bi nag bu dañee rek da ngay retrouver sa forme normale fii nga gis ne booy Baye Mandione. retrouver na forme normale am. Euh, Modou Anta tamit écurie Lamp Fall bu cees dafa taxaw. trop taxaw parce que am na chance su di jóge Thiès daw quelques kilomètres fekki Bombardier à Mbour liggéey ak moom. Uh-huh. donc avantage pour moom mi ngi liggéey koo xamante ne bâtiment la costaud la muy rofonte moom. Uh-huh. loolu rek doy na ci moom pour mu nekk en forme. Uh-huh. Euh, ñu dem. Modou Anta. écurie Lamp Fall bu Thiès seen wàllu ndeyjoor jiital tànku ndeyjooram tàllal loxo ndeyjooram nag Baye Mandione caaro yi gëm sa bopp firi seen wàllu càmmuñ. jiital tànku ndeyjooram ba tey waaye talal la ko càmmoñam vamos ma aussi sañu dem ñi lewtoo salaamaaleykum Baye Mandione commencé ko teg pression ce qu'il ne devait pas faire ah sànni dek du droit ñaari ah, ndeyjoor mon consultant lu tax waru ko woon teg pression waru ko woon teg pression parce que moom moo sut adversaire a hmm. adversaire nag dañ ci taamu boo ko sutee jox ko distance respecte respecté li naan la zone de sécurité pour mun ko toucher te du la toucher waaye actuellement moom mooy dem à l'assaut mhm. lii nag moo daan daa ko def mais Bamba Dieng dafa def son contraire d'accord mu doonte nag mi ngi taxaw di jéem a fel kurpañ bi mhm. xoolal kurpañ bi dugg na ci biir mais est-ce que ko dal mhm. ndax loxo bii loolu lay jëriñ pour mu chasser kurpañ bi fel ko pour mu bañ ko dal vamos maa ngi dem kon dala ko gis nga kon ba tey dalu ko dugg na may dalu ko ah. ça c'est le ralenti. pour magnifier les choses. moo tax ba léegi nekkul nekkul ci terrain ma. mu ngi il se cherche parce que yëf yi daf ko bett. voilà dafa ñëw teg ko pression voilà. Ah. amagul jotu taxaw. bon mu ngi koy dàq. Hmm. ah taxawal déet mi ngi bëri ah. y' a pas de ah. taxawal ah. c' est un combat ah. ku nekk sa astuce Baye ba tey mu dox ci adversaire am xool ko. dox ci moom. Mhm. mu doon tam mépp ko. suuf. mëb hmm. ko ci suuf da ko mëb siggi jàppante ñoom ci kaw. Aïcha. attention Mao attention Mao. <laughs> Eh, mon consultant dafa mel ni ko sante bi bari na torop exactement li ko waral moom mooy ñoom ñaar booy xool ba ñuy ba ñuy nuyoo. Hmm. ay tànku ndajoor lañu jiitaloon waaye boo xoolee gis ne côté droite la ñuy xeexee. Hmm. ndajoor la ñuy jiital di xeex droite moo tax ñu weccoo ñoom yaa seen loxo ku nekk ku ne kor sa morom. ku nekk dafa nekk terrain actuellement nii. Uh-huh. bàyyi ma ñor ku ne xam na ne day kor. moo daan ku ne xam ne day kor ñoom ñaar bi ñu korantee nag dañ commencé ku ne dóor sa morom ku nekk di dugal ku nekk dóorante bi yëpp kenn dawul ñoom ñaar ñëpp mi ngi dugg pap exactement pap mais kenn dawul léegi nag intelligence di joué ci biir dóorante bi nag ci la Modou Anta jëlee loxo bañ ko koroon aj ko maanaam da koy aj fu mu ne nii mu aj loxo bi mu dem carrément pour bëtt ko voilà c'est donné attention mais lii dafa mel ni quatre appuis la bu leer naa ñu mbokk téléspectateurs gis nañu un deux trois quatre désignifié jël bu leer nañ moom fi déjà te dara xewagul et encore ci contrôle arbitre bi arbitre baa ngi nii ah. mais malheureusement arbitre bi ginnaaw la féete la nekkoon ñëw na ci kanam léegi. Uh-huh. mais en arbitre am na trois am na deux juges yu koy xoolal tamit. Uh-huh. ah juge mënuñu ko bañ a gis c'est pas possible. Uh-huh. ils sont trois. waaw bu kenn gisul boo gisee bu jël amee. kenn dem ci arbitre bi. di ko laaj dem fii di ko laaj. c'est pour. foofu dañ naan bu ñaar àndee arbitre bi dafay accordé maanaam man Moustapha Guèye may arbitre central uh-huh. Bouf yaay sama euh, deuxième juge deuxième juge Mbaye Fall sama troisième juge uh-huh. léegi jël am mu sikki sàkka uh-huh. man déjà xam naa ne diw moo daan waaw ma déglu la déglu la ak Mbaye Fall ku ànd ak man ci Mbaye Fall rek dama dem yëkkati loxo kenn kii deux mu nekk deux contre un donc ñetti juge ñeent ñaar juge bi mooy arbitre bi nu mu féetee ginnaaw juge baa ngi boor bi beneen juge baa nga boor bee donc donc ñoom ñetti bokk ba léegi kenn gisagul jël bi te jël am na léegi nag kay li ñuy wax moom mooy bu la contraire amoon bàyyi ma ñoon jógoon tey jii daan ki nga xamante ne mooy mu anta fan la wax di mujj ji lan moo ci mujj amaat loolu day am coow day am coow bu dul jeex waaw ah, les lutteurs sont sanctionnés le temps mais les arbitres ne sont jamais sanctionnés xam nañu nag arbitre lañu nag ay nit lañ dañuy juum mais juum yi dafay bëgg a bari des fois mhm. ah. day porter préjudice mbër li ci gën a doy waar sax mooy da ngay daan mbër ñu bañ a jox jël mu daan lañ jox ko jël nga bind recours tu payes ton argent. non seulement boo fayee sa xaalis ba pare am delloo sa xaalis xaalis boobu da nga ko déposé perte nga ko et puis deux semaines après ou trois semaines ñu doon jox victoire fekk yëf yi sàppi na. loolu dañ ko war a xoolaat encore une fois. c'est bon vamoosement ñu dem. ba léegi tant que arbitre bi ñëw jóg mhm. mu ngi sécuriser li muy def. Mhm. comme que gisagul fu ñu ko yëkkatee mbaa fu ñu ko attee mu ngi continuer bëreem. arbitre sifflé mu continuer. daal mu continuer bien sûr logique. ay semence ñu dem bàyyi ma ñoon di tourner. pour jënd ci wër na mi jàkkaarloo adversaire bi. gis mu ante kon jël léppam nag ceinture ko carrément ëmb ko téye ko bu baax a baax nag war a ànd ak moom normalement. avancement o muy jéem a tourner ah exactement bàyyi ko bu mu tourner rek. mu wàcc dar dar tànk yi ànd ak moom ci suuf. jël doole bi daal ko ciy def. daal di ko ciy def mu daal di dem moom. donc da ngay gis ne kon Modou Anta la le tigre de Thiès ah daan na bàyyi ma joon fii ci action bi ci benn combat ñaari jël yu amul benn werante